voilà yegg si nañu ci euh, rubrique sport donc euh, di euh, rubrique bi nga xamante ne moom la ñu jagleel wàllub tàggat yaram le temps que invité coach daal di installé wu ma leen di fàttali juste que qu'il s'agit de Pape Djibi Diaw di international espoir du Sénégal donc coach moom la dalal tey pour ñu daal di sekk waxtaan il s'est installé Cheikh Tidiane Gomis ma introduire sa invité wala ma bàyyi nga introduire ko donc <laughs> ok donc euh, <laughs> Pape Djibi Diaw euh, c'est un plaisir ñu dalal la suñu plateau euh, di la nuyu bàyyi la nga nuyoon teg téléspectateurs yi. waaw le plaisir est partagé maa ngi nuyu ñi mu bokkal plateau bi yëpp. Ah. di nuyu téléspectateur Petit Déj ak sénégalais yi may suivre yëpp. waaw ah d'accord ñu lay fay bu baax a baax donc ñu coach ma bàyyi la nga sekk ak moom waxtaan. Euh, Pape Djibi. waaw <laughs> Pape Djibi ça yaa ngi vacances. waaw maa ngi ah. xam nga danga nga euh, tombé à pic boo gisee man ma choisir la invité la tey mm. euh, dama sote ci dama sote ci occasion bi parce que tirage au sort li nga xam ne mooy coupe du monde bi ñu jëm Sénégal dama koy rappeler le Sénégal. day dafa bokk poule ak ki nga xam ne moom mooy euh, kii di euh, Colombie Japon ak euh, Pologne ñu am chance yow ngay évoluer dans le championnat polonais. Mm-hmm. tey ñu naka daje ak Pologne et d'ailleurs man c'est le premier match du Sénégal yow nga nekk international espoir te rien n'est écarté parce que xam nga rek fu mu nekk nii. yaa ngi def benn saison bu euh, exceptionnelle bu extraordinaire euh, fi nga nekk euh, léegi ñu bëggoon rek yow nga wax ñu un peu le football polonais football polonais comme ni ko ñëpp gisee defe naa ni ñoom wane nañ seen bopp si Euro 2016 bi passé te si qualification yi tamit bokk nañ si équipe yi njëkk a zone Europe bi mën naa ne sax si monde bi yëpp donc dafa nekk football boo xamante ni c'est ñoom historique wu quoi. en plus c'est des donc ñoom dañuy xeex lépp dañ koy xeex donc seen football dañuy def benn euh, défensivement défense bu baax après ñuy procéder ak ay contre donc euh, seen couloir yi aussi euh, dañ nekk ay joueurs yu xarañ quoi donc am nañ tamit joueur bu leen mën a téyel bal ci attaque bi Lewandowski ñëpp xam nañ ko en général day jouer avec deux attaquants donc am nañ ay potentiel quoi. Mhm. Euh, bi ñu defee tirage bi. Mhm. yaa ngi woon Pologne. Euh, ñoom naka la ñu euh, bi ñu di gisee ne Sénégal la am comme adversaire ci mhm. phase de poule yi naka lañ ko kii am. waaw man sama côté équipe moom du ma dugg si dafa mel ni coupe du monde yëpp Pologne Sénégal la quoi dama <laughs> ñëw gars yi di ma sànni xeer commencé wax. Uh-huh. en plus commencé ma laaj jour ko quoi par rapport ak potentiel Sénégal. xaw nañ ci tuuti parce que am na Sadio Mané moom ñëpp xam nañ ko donc du coup ñëpp si loolu nañ la ñuy laajte quoi commencé laajte nag poste par poste ex <laughs> jours yi bu nekk quoi. donc waaye euh, ñoom déjà ñoo ngi si coupe du monde bi. Mhm. defe naa ak Sénégalais yi yëpp quoi parce que coupe du monde moom gars yi ñoo ngi siy def seen bopp ba instant bi nii quoi. mais yow en tant que euh, maanaam joueur buy évoluer foofu yow gëm nga Pologne sore ci euh, coupe du monde bi. waaw. am naa si yaakaar mu dem deuxième tour ko mais bon. comme mu ànd Sénégal deuxième tour waaw man loolu laa bëgg quoi maintenant coupe du monde instant bi nii presque équipe yu bëri ça jàpp naa ni lépp xeex lay nekk quoi. Mm-hmm. place yi moom ñëpp dañ ko war a xeex. donc euh, même gars yi du ñu wax waxu Japon man je pense que Japon tamit dañoo dangereux trop. Mm-hmm. parce que ñoom dañoo am ay joueurs yoo xam dañuy vif en général. en plus tactiquement dañuy discipliné donc euh, day nekk ay équipe yoo xam neexuñu joueur ko waaw. waaw mais euh, yow euh, bi nga demee Pologne est-ce que maanaam waxoon nañ la histoire bu Pologne footballu Pologne bu njëkk ba ndax xam nga si dara un peu. non pas tellement. parce que bon xam nga xam nga il faut que gars yi xam ne meilleur buteur de la coupe du monde de mille neuf kii 74. Euh, mhm. c'est un polonais Lato. Ah ok euh, sa papa. xam ne moom xam naa sa papa xam ne ko. dégg ma koy nuyu euh, au passage. Abdoulaye Diaw dégg ma koy nuyu. moom mais mais mais mais au niveau Pologne Pologne mm. est-ce que parce que ñu bëri dañ ne que seen joueurs yi. Mm. ñi nekk équipe nationale ñu ci bëri évolué wuñu pour Pologne. wala. en ça dépend si poste yi parce que ah. seen défense ñu bëri problème lañ nekk. waaw mais côté attaque bi xam naa la may expatrié quoi. Ah. waaw mais seen booy xool seen deux derniers matchs amicaux yu passé yëpp presque jour yëpp Pologne lañ doon joué peut-être tamit dañ doon nekk di essayer di xoolaat ay combinaisons. waaw léegi euh, euh, ci yow tamit ci euh, li nga xam ne moom mooy Euh, bi nga jógee équipe nationale espoir. bi ngeen defee seen euh, kii boobu coupe d'Afrique boobu automatiquement euh, da nga dem ci pays de l'Est yi parce que Pologne noonu la mel. mais naka nga xam nga foofu dafa sedd. yow yow yow comment tu pour maanaam nga mën a dugg ci kii bi. waaw comme lu may wax rek joueur moom dëkkul fenn ko en plus football c'est universel donc man dañ ma proposer benn projet. donc ma xool projet bi après ça m'a intéressé ma ni pourquoi pas dem essayer foofu après mu nekk benn genre tremplin pour euh, après ñëwaat ko ouais. c'est dur. Mm, le championnat c'est dur parce que il faut nga adapté wu rapidement sinon dañ lay mettre aux oubliettes donc il faut nga rap euh, nga adapté wu parce que style style de jeu yi du benn. langage bi du benn donc euh, population bi nga fay fekk tamit du benn par rapport ak ñun lu ñu xam Afrique bu fekkee France mooy tane parce que France Sénégal euh, xamante nañ quoi. Mhm. donc bu fekkee Pologne la da ngay dem foo xam ne kenn xamu la en plus foofu seen championnat euh, da ngay am seen passeport boo amul passeport européen deux personnes ñoo am droit donc loolu tamit day nekk ay entrave yoo xamante ni c'est un peu difficile quoi. waaw mooy xool sa benn euh, euh, vidéo mais dans le dama gis ne que da am audace. xale bu toll ni yow xale. nga dem ci championnat bu mel noonu ma gis la da ngay dem sax ba di xam nga euh, dem di am ay occasion di kii di am dégg nga audace boobu xanaa kan moo ko inculqué sa papa Ablaye Dia. <laughs> waaw mën naa ñu paa bi la ak waa Derklé <laughs> parce que fii laa joué mais football noonu la tamit ah. football kenn moomu ko donc benn affaire la boo xamante ne da nga koy dem jëli ku xëccoo la quoi donc booy xëccoo dara moom faaw nga jox sa bopp les moyen pour euh, atteindre ses objectifs quoi loolu kese la. waaw pour ñi lay seetaan xam ban club ngay joué foofu comme ça pour. waaw Corona Kielce. Euh, fu mu nekk nii euh, très kii da ngay nekk très. waaw instant bi waaw ñaata ngeen bi ñoo ngi septième place quoi. septième place baax na wala baaxul. waa instant bi baax na parce que li ñu rawee points yi bëriwul quoi un point un point la ñu rawante mhm. donc euh, ñun ñoo ngi woon avant dernière journée bi ñoo ngi woon ci quatrième place euh, ñu def nul wàcc septième place donc points yi bëriwul quoi waaw mhm. en plus euh, instant bi qualifié nañ demi-finale coupe de Pologne donc on a les chances de jouer en Europe mhm. ah waaw waaw waaw alors man j'ai juste deux questions benn bi xam naa ça va te mettre en mal soit ak waa Sénégal wala ak waa waa Pologne. Hmm. ci coupe du monde entre les deux pays kan nga que moom mooy gën a sori. Hmm, man Sénégal Sénégal. ba pas tu es sénégalais mais. booy xool ci ci ci ni ñuy footballé ñoom bu néew si football tamit li ma si xam tamit Sénégal laay wax. d'accord waaye parce que ñun ëppale nañ fenn Pologne ok et euh, beneen bi mooy est-ce que est-ce que pare nga pour bu la par exemple équipe nationale woowoon pour nga ñëw défendre couleur euh, nation bi. <laughs> plus que pare kañ parce que jour moom ñun loolu la ñu am quoi. d'accord sunu métier la moom la ñuy def chaque instant. waaw loolu ngeen euh, am mais am na ko même ñu ñuy woo ñuy bañ pour. waa ñoom ñoom peut-être ñoom <laughs> ñoom la ci parce que am nañ seen raison quoi. Mm. d'accord. d' accord alors man dama lay laaj fu mu toll nii euh, comme on le dit dans le monde football dafa dem ba nekk industrie. Hmm. pour yow miy nekk bitim réew nekk expatrié nekk dans les pays scandinaves ñoom nga xamante ne dans les années quatre vingt ils étaient très très pauvres ba amuñu woon jot sax di industrialiser nga xam ne seen football. Hmm. comment ils ont fait pour réussir am benn bon boobu par rapport ñun euh, ñun fan lañ leen mën a copier ba ñu tamit jéem a tendre sax daal di dem ci industrialisation waaw comme ba may débuté sànq wax naa la ni que polonais yi dañoo patriotique ko mm-hmm. donc ñoom xam naa ni foofu la ko parce que ñoom dañoo bëgg seen dëkk ñoom lépp lu ñuy def ñoo ngi ciy wax seen dëkk xam nga même bu ñuy sol sax seen couleur dëkk rouge blanc bi dañ koy mettre en avant donc euh, sa dëkk moom boo ko bëggee di nga def tout pour euh, développer ko. te booy xool patriotique boobu la ñu am. voilà dañoo am fi pap. fa graw quoi polonais yi. d'accord même booy làkk beneen langue sax dañ leen ne làkkal polonais <laughs> kii la. alors lan mooy avantage Sénégal par rapport équipe euh, polonaise boobu. Ah, je pense que défense Sénégal moo gën a baax défense Pologne parce que Pologne sen défense bi doon na joué bu baax temps euro bi mais match yi passé ñoo ngi set quoi ñoo ngi seet ay combinaison côté défensive donc je pense ak attaque au Sénégal mën nañu am dara si match boobu quoi. d'accord d'accord d'accord man dama ko bëggoon laaj juste nan nga gisee équipe nationale bu Sénégal bii nii parce que ñu gis nañ ay internationaux yu bëri yu génn joxe seen point de vue ñenn ngi joxe nañ ay critiques ak yu ni mel yow nan nga gisee équipe bi lu ñu si war a renforcer waat. bon critique moom du ñaaku ko mais man je pense que équipe bi bokk na si équipe Sénégal yi gën a complet ko parce que booy xool ligne par ligne euh, ay joueurs yu baax ñoo ko nekk. donc man li may wax comme li may yàgg di wax quoi ñaan la équipe bi soxla quoi. Hmm. nañ xool yëpp booloo ñu ñaanal équipe bi après équipe bi am dara. surtout waaw. d' accord ah d' accord mooy yow ban poste hmm. euh, <coughs> gëm nga ne euh, gëm nga ne euh, ci équipe bi am nga ci place. parce que loolu la xale yi xam nga comme li ma la wax rek <laughs> ñun da ngay sa bopp. Mm-hmm. donc euh, am naa si place wala aw ma si place du man maa koy wax quoi man li may def mooy sama côté liggéey moo def li. Euh, jotee yomb quoi. na loo xam ne ñu di joué ci euh, pays scandinave bi dañ koy kaas. Mm-hmm. man ñu ci bari dañ may woo di kaas ci lenn. Mm-hmm. ñu ne que ñoom. Euh, maanaam kenn du leen. dañ leen di fàtte waaw dañ leen di fàtte ñoom daal kuy jouer championnat euh, Espagne. Mhm. France Angleterre Allemagne ñooñu daal la xool. Mhm. Euh, yéen kenn du leen ko est-ce que yow am nga depuis bi nga nekk kii Espagne est-ce que yaa ngi am contact ak le staff technique ou bien la fédération. waaw c'est vrai que côté médiatique. foofu noonu kenn médiatiser wu ko comme euh, championnat de France ak kii mais beneen côté bi nga xam ne si li ñuy jëlee joueurs yi je pense fédération bi ñoom ñoo ngi xool joueur Sénégal fi ñu nekk yëpp ñoom xam nañu joueur Sénégal li ñuy def quoi donc euh, pour côté jël bi moom je pense que boo defee li nga war a def moom dinañ la jëlu ko ak foo mënti nekk donc euh, loolu mooy wax bi quoi. waaw mais ñu nekk ci pays scandinave yëpp. Mhm. ñoom pour ñoom yoon la. pour ñëw ci championnat yu mag yoo yow nag fan nga ci toll championnat yu mag yi pour ñu mën a xam ne yow euh, championnat yi ñoo gën a visible. waaw waaw yow yow yow fu mu nekk nii fan nga toll. parce que bon maa ngi dégg euh, ay ay dégg ci euh, fans ay nangam yooyu bon xanaa nga may ñu scoop bokk. li ma lay wax ma lu nekk genre dafa am kenn ku koy toppatoo performant naka laay def def match yu baax. Euh, attentes yi ñu teg si man naka laay def ba mën ko satisfaire après man liggéey bi nekk si ginnaaw ma damay xëy rek ñu ne mat na ko après yàlla wax na. <laughs> mais yow amoo amoo préférence. préférence préférence championnat préférence club. non euh, ci les quatre euh, les cinq championnats mooy cinq championnats yi kii. waaw je pense footballeur yëpp Angleterre la ñu bëgg dem donc. je pense que dina am dina am yoon quoi balaa ngaa dem Angleterre dina am yoon euh, bi nag yoon boobu noonu lañ nekk di négocier quoi mm. xool nan lañ koy kii ba mm. dindi xaaxaar mi dem mm. <laughs> mais coach dafa mel ni moom miin na Aliou Cissé parce que ci équipe euh, nationale espoir la waaw ci espoir la nekkoon euh, champion waaw waaw waaw Saliou sa moo yoroon mais Aliou Cissé man je dis que Aliou Cissé xam ne l'a suivi lors des Euh, championnat d' Afrique U23. si se xam na ko Sénégal yi xam nañ ko xam nañ Pape Djibi jaw et que je pense que bon espoir wu footballu Sénégal la. Mhm. parce que booy xool trajectoire bi ñiy jël euh, ku mel ni Pape Djibi Diaw mooy trajectoire bi ñoom Karambo jëloon. Mhm. mooy Londres 2012. Euh, tu as vu mhm. donc léegi nag si même kii bu dee kii boobu la ñuy topp dans les normes ñun am nañu. loo xam ne. ay réserve yu mel ni comme moom. et tey jii ku mel ni moom euh, Sénégal mën na ne non au moins tey jii xam nga mu ngi waxtaan yi am ay Crépin ay nangam yooyu yooyu c'est c'est c'est presque ci même euh, ci kii boobu la quoi ci euh, ci kii boobu mais mais mais mais mais yaa ngi wax Angleterre c'est vrai dëgg la yow fu mu nekk nii lii nga xam ne moom mooy. agent bi ñëpp xam nañ loolu agent bi mooy toppatoo yenn yi. mais mais non nit ki moom nit ki moom euh, day xam nga euh, am na am xam ne day laaj ñu ne la man bëgg a dem. Mm-hmm. ñii ne la Manchester United. Mm-hmm. ñii neen euh, fii la waaye fan. non man côté boobu amu si préférence. amoo ko kon yow foo dem mooy baax na. non du question de fu ma dem baax na maintenant ça va dépendre de comme li ma waxoon sànq projet bi ñu may proposé par rapport ak man samay ambition ba xam club boobu noonu soxla ma. maa ngi moom bokk nañ jëmukaay quoi. Mm-hmm. si loolu dafa bëri critères yoo xam ne moom ngay choisir club bi ngay dem ko waaw mm-hmm. mais man moom sama club de cœur olympique de Marseille la woon bi ma nekkee booy. Euh, laay supporté ba nii waaw. <laughs> bëgg hmm? <laughs> parce que sama de cœur la daal. waaw. Hmm. Euh, combien de ñoo nekk dans le championnat euh, bi man maay seul sénégalais foofu. seul sénégalais. waaw mais année bi may doog a ñëw amoon na beneen sénégalais bu nekkoon Cracovia mais hmm. instant bi dem na Turquie. donc instant bi man maay sëb sénégalais foofu. ñaata at nga def foofu. Euh, ren laay dugg si deuxième année. deuxième année ah waaw deuxième année. waaw et objectif toog fa euh, deux ans trois ans quatre ans. non comme li ma waxoon sànq rek foofu tremplin laa ko bëgg def donc euh, dama bëgg marqué gaaw sama empreinte foofu après quitter au plus vite dem xool yi lu gën a supérieur. Pape Diouf Diop boo nekkee foofu di juillet ak man loolu lan mooy sa passe-temps foofu parce que parce que souvent en euh, kii joueurs yi c' est ça la kii yow lan mooy fooy foofu sa passe-temps. boo demul entraînement boo joué wul lan mooy sa passe-temps foofu defe naa amul passe-temps man kër ga rek laay toog peut-être jouer PlayStation seetaan film. <laughs> papa ma koy seetaan ko ci tool ah, ah, ah. si <laughs> du la wax. luy luy non non non non non xam nga xam nga ñoom. boo c' est ça ñu bëri dañuy posé wu question waaye ñii après football bi. nekk foofu bitim réew lan la ñuy def waaw man en général sama kër laay toog parce que dama xaw a effacé donc euh, comme que foofu Europe de l'Est la chaque mm. jour boo génnee dañ lay xaw a dévisager parce que mm. comme que dangay nekk nit ku ñuul si digg nit yu kii mm. te en plus loo def ñëpp dañ koy xam donc euh, <laughs> day am nooy dundee foofu quoi. Mm-hmm. amul foofu sport étude. waaye dina am mais comme que ñoom seen langue polonais la. donc pour nga gis par exemple ku jógee Sénégal pour dem foofu day xaw a métti ko. Mhm. am na nag ay école euh, internationaux ko mais côté Cracovie Varsovie donc euh, je pense pas que dina am dina bëri africain yu fa dem trop trop trop. d'accord kon yow di nga namm Sénégal boo fa nekkee. maanaam. Euh, waaw waaw mais lekk bi man tamit dinaa am yu ma si débrouillé tuuti quoi. yaay lekk yaay togg sa bopp. waaw mën naa togg am na sama jabar tamit daf may togg. waaw. ah kon yow tu es là avec ta femme. waaw ah, ah, c'est vrai c'est vrai ah mais euh, léegi yow fu mu nekk nii euh, le champ est-ce que yaa ngi écho ci le football local ici. dama koy suivre chaque chaque fois chaque instant parce que fii laa jóge tamit. waaye mm-hmm. chaque instant damay xool euh, match yi yeneen saa yi quoi. waaw mm-hmm. mm-hmm. en plus am naa xarit yu fiy joué ba tey. d'accord alors coach man dama koy laaj benn dernière question mooy nga nekk doomu tonton Ablaye Diaw est-ce que loolu nekkul beneen euh, charge pour mu nekk beneen poids pour bu nit ñi doon def benn yow nga gën a def ñaax te ñëpp. dañoo man du ma ko woowee dama koy woowee chance parce que. moom moo ma jiitu si li may def donc moom ma si ëpp expérience moom mun naa ne daf ma xàllal yoon daf ma won yoon bi naka nga si demee ko mhm. donc moom aidé ma si lu bëri si sama bi may nekk Sénégal ak euh, nii nii ma nekkee Europe aussi donc moom balaa may dem euh, Europe doon na ma wax euh, professionnalisme mhm. naka la mel te bi ma demee gis naa li ma doon wax yëpp Mhm. donc loolu chance laa ko tuddee quoi. d'accord parce que du la duñ la baal dara. waaw c'est clair moom moom du la baal dara. Mhm. te point que dafa exigeant. waaw parce que man buy wax euh, euh, wax ak man ci yow vrai dafa exigeant dafa dafa kii. c'est clair instant bi sama rakk bi joué moom moo jël euh, kii bi quoi. <laughs> waaw waaw moom il est exigeant vraiment man bu may wax ci ci football wax ma sax ci yow mais buy wax ci leneen moom. non moom perfectionniste la quoi. voilà c'est ça bugguma nga nekk jour euh, ordinaire chaque jour da nga war a wane sa bopp. Mhm. bu ñuy jël trois jours yow nga bokk. il a raison. waaw. <laughs> depuis bi nga nekkee Pologne. lan euh, kii bi euh, souvenir bi la gën a metti. bi ma gën a metti. moment bi waaw bi nga ñëwee foofu loolu mu metti la. yóbbu dund ko li yàlla la peut parce que daaw. fi sama championnat di gën a baax xam na benn instant dañ ma opéré woon quoi donc euh, loolu bokk na si moment yi gën a métti parce que nga dem foofu ñu opéré la nga nekk euh, hôpital sa famille sori la bokk na si moment yi gën a dur quoi si bi ma demee foofu. waaye mhm. mais ndogalu yàlla moom kenn mënu ci dara. bi gën a neex nag bi ñu gën a neex peut-être euh, sama premier match foofu. waaye uh-huh. parce que dafa bëri woon pression en plus maa ngi doon doog ñëw foofu kenn xamuma. Euh, en plus am na benn ak central bu doon joué foofu Ivoirien la woon. Mhm. kooku da defay def ay match yu bon. en plus gaucher comme man ma ñëw ñu ne euh, ki ngeen fi indi ak ki fi nekkoon benn la rek. Mhm. donc euh, ku bon ngeen fi indi quoi. <laughs> mu nekkoon après match boobu ñëpp ne xam nga man jël meilleur homme du match. après ñëpp ne waa kii moom kii yoo kooku du benn quoi. Mhm. donc boobu dafa nekkoon fierté si man ak contentement quoi. bon dernière question. ban club fii Sénégal waaw. dañ may indi problème. <laughs> léegi waxal la waxal club yi ma jaar yow. <laughs> déedéet non non non non waxal da waxal kii la xam nga non. da ngay wax ne mooy man ba ma nekkee xale man GIA laa doon supporter quoi parce que sama papa GIA man la donc euh, GIA quoi. Ah, d'accord d'accord donc waxtu euh, bi. Euh, voilà merci donc nag voilà. ñu koy remercier bu baax a baax mm. moom Pape Djibi c'était un plaisir de dalal suñu plateau donc ñu bàyyi la nga ma plaisir bi partagé la quoi di leen remercier si invitation bi di remercier Père Gomis di remercier nekk si plateau bi yëpp remercier euh, téléspectateur Petit Déj ak euh, pa bi xam naa moom si ginnaaw <laughs> ak sama jabar sama yaay waa koñ ba yëpp quoi waa Damel parce que ñëpp ñoo ngi sama ginnaaw quoi ak waa Derklé parce que ñi may soutenir dañoo bëri ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier di remercier aussi euh, tonton Ibou Loum moom tamit waaw moom daf si jàpp bu baax <laughs>